moy non ñong leen nuyu di leen ziar di leen jox seen way di leen contane bu baax baax di nuyu mbok internet lit motivation té nak ñong fi nga xamanteni moy keur Massar set ci champion set ci sersi set si kenn ko xamanteni yag na def ay jolorem ci li nga xamanteni moy lamb muy Cheikh kan gaay yi xamna ni namon ngeen ko mais dama koy jox cadeau gi bu ko defé mu nuyu yeen Cheikh ma lay ziar. wa Baye Fall ñongi doli ziar wa senegal ma ngi leen di nuyu ku ci nekk ak sa tour ak sa sante wa di ziar mbok julit di ziar mbokk di kilifa diine yi xam nga waaw di leen ñaanal di ñaan yàlla sama papa fa mu nekk yàlla na suuf sedd ci kawam sama yaay ji fi des nag yàlla na ko yàlla ak yonent bi may gudd fan ak wér gu yaram sama soxna yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram ak samay doom wasalaam mais cheikh si lan nga nekkoon durant luñ la gëj a gis lii yëpp durant liñ ma gëj a gis lii lépp man maa ngi woon ci géej gi parce que man mool laa quoi damay dem géej waaw parce que mbër moom boo ko xasee ba war a doon moom da nga war am métier te man dama am métier waaw loolu moo taxoon nag boobu ba léegi gisuñu ma ci làmb ji mais maa ngi sama métier di liggéey di dem géej waaw. làmb yi namm nañ la trop. waaw maa leen raw nag. barke Serigne Touba maa leen raw dëggantaan sax. xam nga waaw. mais nan gisee gisee làmb ji. làmb ji fi ñu toll nii am na li nga xamante ne baax na mën nañ ne baax na am na leen li nga xamante ne mooy nit pour man lu ñu war a defaraat la quoi ci làmb ji waaw. comme lan noonu. presque euh, li ma ci bayi a nyari xel nyari ñaari mbër ñaari ponkal yi nga xamante ne da nga leen tëj enceinte ñuy bëre ñoom bu ñu xeexee bëri xeex bëri xeex bëri xeex bëri xeex bëri ba jéggi saako yi ñu dagg seen xaalis te loolu du yoon mbër làmb bu njëkk da nga daan gis ñaari mbër yi dañuy bëre di xeex di xeex di bëre ba génn ginnaaw génn lang gi ba ca lang ga di xeex xam nga la après nit ñi dox seen arbitre bu dox seen diggante ku nekk wut foo dongali kii dongali jaar nii kii dongali jaar nii yëngal ay supporteurs mais làmb léegi yow rasu ci bëre la bokk. waaw waaw léeg nit ñu ramassé ko ci booru saako yi. xam nga la mu def action àndandoog action bi génn saako bi ñu dagg sa xaalis. Mm-hmm. te bëri ak loolu ñoo ànd. Mm-hmm. waaw mais am na ci yenn yi nga xamante ne nag moom boo ko bu dee da koo génne saako yi ci sa sago. wa bu mom xamul wax wa mën nañ nanguna ñu dagal la quoi parce que ya ko def ci sa sako mais dalay leer ne bu ma sama bop ci boru sako buñ ma ramassé lamb ji yam fa waaw damay rasu te bu ma raso damay wa damay arrière jéggi sako parce que loolu lepp ci beure la bok dal bu non sama sago la waa CNG nañ ko xolaat bu baaxa baax waaw tit lamb dafa am mbeur wacc ci souf tous samp dëkkante te dëkkante lay gisatuma ko ci làmb ji waxuma dëkkante nak ñëw di ci làmb ji di dóoranteeg di ti yooyu dépassé nañ yoy mm-hmm. mais ñaari mbeur dañoo wara a ñëw kii yëngal supporteram ki yëngal supporteram mm-hmm. ñu dëkkante parce que lool ci lool loolu a ci aru làmb la bok mm-hmm. waaw mais est-ce que newul léegi euh, mbeur yi buñ ñu dañuy dóorante ay kurpañ affaire yooyu noonu moo non non non non non affaire yi léegi warna gëna mëna a mën waaw bu ñëk da nga ci daan gis dëkkante bi nga xamante ne mooy dàq sax combat bi dañuy dëkkante xeex fa bëre fa xeex bëre xeex bëre ba ñoom ñaar ñëpp ku nekk sangoo sa deret après ku nekk dongali dem mais bu jeexee ci làmb ji jeex na mais léegi loolu xam nga waaw mën naa ñàkk mais ñaari mbër mën na ñoo wàcc ñëw dëkkante tàllalante ay loxo samp ndënd xam nga la kii bàkku jaar nii kii bàkku jaar nii suñu paree après ñu yéegaat kaw turbine bi ñu toog seetaan làmb ji parce que loolu ci aaru lamb la bokk quoi wa day neexal lamb amna mm-hmm. solo euh, ki nga xamanteni ne Cheikh mais tay ji euh, lambu demb ak làmb tay lan mo len différencier ci xetum mu beri ak xex waaw non nak, bokul, bokkul léewaatoo yi bokul xetu xex yi ñi xex bokul parce que mbeuri legi ñu ci bari ko ku ci jang xex ku ci nek da nga nan dañ la demutal wutal la boxeur pour mu jangal la xeex boxeur mën na la jangal gauche droite bu jup mais lamb xexu lamb ci biir entraînement beure nga koy Mee mais sa bo démé sabok ñu wut sa deh mu taxaw feulé def dila jangal ak gauche droite gauche droite gauche droite loolu mën naa mais ci feur ci feur ga am ci biir ak di wara beure di wara xex lool yeb diko calculer lool ci biir entraînement nga koy jangé jàpp ba paré wala xex ba paré waaw waaw mais boxeur bi mom mën na la taxaw ni déplacer wu jam gauche jam droite xam nga déplacer wu waaw pour defar loxoy yi waaw loolu it ba mën na nekk mais mbër yi ma fi gis ni xeetu xeex bi ñuy xeex mooy dóoral ma dóor te dóoral ma dóor wóorul waaw. ban mbër mooy bëre nga xam ne kat kii nii xeexkat la kii nii li muy def mën na ko te da koy teg ci yoon actuellement. fiñ ñu toll nii ci booy yi booy ñaa ah. Boy hmm. ah. parce que formation bi mu jaar la hmm. boy bobu boy bobu ñu bari xamuñu ko hmm. mais dina fi daan yenen daanan waaw champion la parce que boy bobu dafa dundu làmp boy bobu da daan nek dañu man ak papam dañ daan anda ak Baye Cheikh sama ben xarit bi ñuy wax Baye Cheikh momit mbeur la Pikine la dekk ak papam degol dañ daan and wara dem lamb sax papaam ne ko noonoo do dem mais ci ñun lay ñew laqatu ci ñun ñu forcer papaam na ko waaye bàyyi ko ñu yobale ko lamb way ma ne non baye ko ñu yóbbaale entraînement ba ci entraînement noonu. booy ñaa yàgg na la fréquent non booy ñaa maa yar ño bokkon ben koñ bi ñu dëkkoon ñoo ay kër pikin diko taf waaw mbapatu papaam maa daan toj mbapat papaam daan teug man mako wa waaw fa daan toj waaw ci la ma booy bi bëggee nag doon xale bu ndaw waaw chaque jour mu ngi sama kër papaam xam nga man it sama xarit la yaayam aana it waxi nopp waaw. ndeysaan Cheikh Kane ak làmb lan moo la poussé ba nga ne da bàyyi lépp concentré ci li nga xamante ne mooy làmb lu sa papa nekkoon bër wala lan waaw loolu it moo ngi ci mais man. sama avenir yëpp ba may xale ba ni ma toll nii de sama avenir yëpp dama ko entraîné dama yàgg bëgg entraînement sport sport dama ko yàgg bëgg billaay walaay ba pare wëlbatiku ñu ngénte ma xaalisu làmb waaw xam nga gaa yi dégg naa fii ñuy wax naa ne xaalisu làmb lañ leen ngénte man 78 laa judd te 78 sama papa daf ma ngénte ba ngoon jot mu dem bëri jéeg mbay géey dóor ko mu daanu mu ñibbisiwaat xëy ñu ngéntewaat ma caare géej loolu moo am waaw ci lay sama turandoo nelawee hmm. Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñu wëlbati ko tuddee mu ko sama ma daf ngénte ba ngoon gi jot mu takk ngembam hmm. dem bëri jéeg mbay géey dóor ko mu daanu hmm. ñibbisi ñu xëyaat suba mu ngéntewaat ma caare géej mais loolu yombul de non non non jamono xam nga rek jamono ji léegi ak léegi xaalis bu njëkk ak léegi moo bokkul quoi. waaw mhm. cent mille léegi. Mhm. mu un moo doon dix mille franc bu njëkk. waaw. Mhm. tey jii ndax ah, mus ngaa rencontré koo xamante ni eh, ci mbapat yi. sa jamono ñu koy dégg yenn grand champion yi yoo xamante ni toj li nga xamante ni mooy arène jamono jooju ay Eumeu Sène ay. ay ay ay Paate Balde Paate ñoo doon ànd ñoo bokkoon benn koñ bi ñu dëkkoon Paate man Paate Abdou Salaam Saada Vie Dem xam nga ak euh, góorondooy bari woon nañ mais suñu groupe gi ñun ñëpp ay mbër lañ woon parce que jamono jooju pikin sam papa mu ngi fa doon tëgg mbapat mu rëy ma doon wax naan mbapat mii sam papa tëggalu ko kenn man la ko tëggal poids lese bi jamono jooju jamonoy Lisa la Lisa boisson Lisa ñu jox sam papa ben conteneur bi nga xamanteni lepp ay Lisa sam papa di def combat bu ci nek bu nit daan mu jox la keesu Lisa jamono joju suñu kër dama ko waxuma la suñu kër de mais sama kër xarité rek dama fa jal jal keesi Lisa yi parce que mbappan mi dama ko daan toj ku fi ñew ma la waaw sam papa man la tëggal bopam mi da ngay bëre ak man may borom may borom waaw mm-hmm. poids laissé bi mako jël jour euh euh seen euh, euh, euh, makoddu mm-hmm. sama ben rako papa bu ñuy wax makoddu kan mm-hmm. jour bobu mo jël poids lourd bi saaku ceeb bi jamono do ay ganna seeraas xam nga waaw ay momadou Diouf sokas ay Balla Diouf ay jili bu fas xam nga Tafa Gueye xam nga bari won nañ te ñoo ñëpp ay der lañ won combat bo ci beure combat jank ngay beure ak Serigne Bamba hmm. waaw no solo met eh, tay ji ni sa bën eh, sa sa combat bu nga ñëk beure arène yaakaar la man euh wa fas la de wala fàttan xaaral dina ñëw gal ndjay non non non non non non du gal ndjay ki ba ma gal ndjay beure nañ ki Euh, euh, waaye mbër boobu mbër Fass la woon ñoo ngi bëree fii saatu pikin bi mu sëñ Modou ñaa moo ko tëggoon saatu géejawaay bi fi lañ fi lañ bëree maa ko daan jël bu gaaw laa ko daan parce que dama ko dóor ko pañ xam nga mu daw song ma ma bal ko bi ma ko balee nag mi sama loxo ne mel ni dama koy dóor éprikel mu yaakaar noonu ma taf si zone bi dawale ko dawale ko mu tëdd jaaxan moo ci boobu après sama combat maag Gaal Ndiaye moo ci topp mm-hmm. maag Gaal Ndiaye moo ci topp. waaw mais boobu Iba Mar lañ bëree ci stade Jom bi. boobu tamit nu mu demee. daan. man bëri naa vingt combats komba 28 combats waaw hmm. man 4 défaites laa am. Hmm. ak ñaari match waaw. sa ban làmb moo gën a metti. sama ban combat moo gën a metti sama combat hmm. sama combat maag Tyson gin gi neew. waaw parce que parce que boobu jamono jooju. Tyson gin gi neew daf ma ëpp doole. daf ma ëpp xamala ba pare boole ko ñuy bëree ci biir dëkkam sëñ Modou Niang moo ko tëggoon boobu manga 3 moo doon bëree grand combat bi ak 10 heures ndam si yàlla si 10 heures yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw moom moo doon bëree grand combat bi waaw. mais tey jii ban booy nga nga dajal ci li nga xamante ne mooy arène bi mu sonal la lool ci côté bëre ak côté xeex. côté bëre côté xeex ci booy yi euh, kii daal xam naa ne moom bëre nañ. Euh, euh, euh, kii Pape Morlo bëri nañ mm-hmm. mais bëri ba yàggut parce que moom bërikat la booy boobu waaw mais lu tax bëri ba yàggul mooy dama ko mayul temps fu kurpañ xaj rek def naa ko fa waaw loolu loolu booy boobu daal xam naa ni mooma ah, jaxasoog naa moom ñaari jaxasoo yi nga xamante ne mm-hmm. xam naa ni booy bii ndaanaan la gaay yi loo wax ñu ne ki nga xamante ne mooy Cheikh kan dafa bëgg li nga xamante ne mooy xeex mhm. moom làmbam yëpp balaa ngeen di bëri moom fa nga ñam ay kuwam lu waraloon sa bëgg xeex lan la woon la nga jàngoon la wala lan la man ji xeex musuma taxaw fenn jàngu musuma dugg benn saal taxaw wala benn boxeur taxaw naan man maa ngi jàng xeex man dama daan def saa bu ma demee entraînement yi ba ñëw suñu kër dama fa sampoon benn poto lampe bi nga xamante ne poto lampe boobu dàll laa ci daan takk dal bo ma ci doon tak nak suma ma entraînement ba ñew kër ga damay ñew fa lay dal bi lay taxaw di dóor dal bi ak ci potolam bi potolam bi la ko daajoon di dóor di ci dóor di ci dóor di ci dóor xam nga mais luma ci luma ci luma ci bu may def te limay def baxul sax sa mbab day jël tok na le ko ah, naan ma eh, lolu ngay def noonu ma ko ah, mu ne ma lolu baxul de ma bayyi lolu mu ne ma ni la ak ni ak ni ak ni mbeur sa boko beugé ko pañ waaw ci ay loxo nga koy naxanteeg moom déplacé ko ci biir leewaatoo bi ba dugg ci gardam dóor ko kurpañ du ko yëg waaw. am na solo mais tey jii nii ah, ah, sa papa nekkoon champion def ah, lu ne ci li nga xamante ne mooy làmb jaloore bu nekk def na ko fi ma boo déggee ñenn ñenn ñi di ko tudd ci li nga xamante ne mooy làmb à chaque fois ñu naan papa kan lan la lay def. waaw loo loolu loolu sama yaram day daw man sam papa sax mo gëna a tax sax man presque duma ci lamb waaw parce que sa su né sama xel day nek ci mom quoi parce que sama xarit la won ak sam papa presque bo ñu gis ma sa na gis fekk ñu tok ni di waxtaan ak samay xarit bu dé xamulo sax da nga nan ki est ce que jur ji parce que rien que ndax ni ñu melon waaw moom gëna décourager lo ci bimu ci la gëna décourager ci lamb quoi waaw sam papa dafa bëggoon jambar lu gën marqué paa bi parce que oyof oyof waaw nit ku oyof la woon nit ki nga xamante ne waaw dara fëkk ko quoi waaw dafa doon nit ki nga xamante ne xale bu tuuti bi sax mënoon na koo téye fii ci dundu kër gi waaw loolu moom am na solo di ko ñaanal fu mu tudd yalla nako yalla yàlla na yàlla na ko xaar yàlla ko xaaral ko àjjana mu suuf set ci kawam ak ñi mu fa fekk ak ñi nga xamanteni ñoko fa fekk tamit mais tamit dañuy ñew ci ki nga xamanteni moy mooy Reug Reug sa diggante ak Reug mu bay la parce que Omar Kane booy bobu lamb dafa nekk ci mom ba pare mu wëlbatiku bëggal ko bopam waaw ah. te man ko lolit nak nag bi man ko lool mu nekk ci deretam waaw mu ciy def ay preuve am lan moo la gën a marqué ci rëg rëg Omar Kane ah, booy boobu booy boobu booy boobu la de ndaanaan la de booy taxawee di leewaatoo rek saa bu taxawee di leewaatoo sama yaram day daw dootuma mën a téye sama bopp waaw ndax yaa gis euh, sa bopp ci moom. mu waaw ci la ci anam yëpp parce que booy bi moom maanaam moom may jàppale ci bépp fànn quoi. Hmm. waaw moom may jàppale ci bépp fam fànn te it neex na waxal quoi hmm. dëgërul bopp hmm. waaw loo ko wax moom waaw rek la lay wax même bu doon def safaan sax boo ko waxee xam nga waaw la lay waaw la lay wax du la gàntal waaw. mu am benn combat bu spécial ci diggante mag ki nga xamante ni mooy doomu du Bless euh, di Sa di rakk ci ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 boobu làmb nan ngeen koy waajee. làmb jooju ni koy waajee comme ni ñuy waajee yeneen combat yi rek comme ni ñu waajee combat yi passé noon dong lañ koy waajee parce que booy bi ci compéti ay compétiteur la jógee waaw compétiteur ay compétiteur la jógee quoi kon nag mbër mu jóge ci compétiteur nag moom ak mbër mu gëj a compétiteur yamuñu. mais ndax euh, Reug adversaire bu mel ni Sa ci qualité bëre. ci qualité bëre Reug Reug ci bëre simple bi wala wala ci bëre rek. ci liit avec frappe. non booy yi fi nekk nii nag euh, xanaa benn booy daal laaj xamoon ne moom booy boobu moom xam nga ndaanaan la waaw muy rakku euh, kii bi nu mu tudd waaye. rakku Gris Bordeaux boobu waaw booy boobu. Gris 2 waaw Gris dafa war a daanu rek daanu mais booy boobu daanaan la waaw daanaan la parce que li li ñu soxla lépp ci mbër dama koy gis ci moom mooy sañ-sañ bi waar bi li ma la bëgg a def kenn mënut a fexe ba du ma la ko def waaw ay kombaam yëpp loolu la waaw mooy da ñëw imposer la xeex ak yow nga fork yi mu jàpp parce que poids am boobu ñuy wax noonu moom moo ko moom yaramam la moo ko moom jeune wu ko ci dara waaw booy boobu moom ndaanaan la ko waaw. mais tey jii ngeen di daay de ki nga xamante ne mooy Sa Thiès lan la leen di def. Sa comme comme nan. ci pression. no booy bi amul pression ki daal kiy bëre ay ay vingt combats ci benn guddi. Mhm. benn combat jaaxalu ko. kon amul nii pression nii. non non làmb la rek comme làmb yi. moo kii mbokkam. non non booy bi amul man gisuma ci pression parce que booy bi. Mhm. xam nga bëre moo nekk ci yaramam. mbër bu dangereux ngeen di bëri. waaw Sa champion la. mais dimanche incha allahu rabbi. bëre moo ko teree daanu. moom Sa Thiès moom Sa Thiès ndaanaan la nag. mais Reug Reug lan moo ko war ci li nga xamante ni mooy làmb ci taxaw déglu ko rek Sa Thiès yàgg yàgg day ñëw Sa Thiès mënul téye boppam doonul adversaire bi nga xamante ne dangay taxaw mu taxaw ngeen di leewaatoo déedéet te saa buy jóg day def erreur. moom est-ce que làmb ji. loolu ah, ndox du bàyyi yoonam. gis daal. waaw non ndox du bàyyi yoonam li ngay daan def di am ndam. Mhm. soo ñëwee dara mënu la ko teree def parce que moom nga daan def di am ndam. mais eh, coow li bëri na à chaque fois dañu naan Sa Thiès bu arbitre sifflé rek dee dal ci loolu moom moom xam naa dina ko dégg mais cette mhm. fois ci est-ce que dina ko def. non loolu mooy maninam même bu taxawee taxaw bi du yàgg saa bu ñu jokkalantee ñoom ñaar ci bëre lay mujj parce que Sa Thiès la Omar Kane it bërekat la ku ci nekk bëre bi moo la arrangé parce que ñoom ñaar du ñu mbëru ay bagarreur omarkan mën naa xeex mais buggul xeex bi. gëmu ko non non gëmu ko parce que bëre bi nekk ci moom moo tax. comme que Sa Thiès nga ne Sa ar bu arbitre sifflé day ñëw. du bàyyi yoonam. rëg-rëg nan la war a recevoir ki nga xamante ne mooy Sa Thiès. da koy capter rek bu ko capter rek làmb ji jeex loolu moom amul xaar ma dem te ko capter. Mhm. ba jàpp ko mhm. waaw làmb ji fa lay yem. Mhm. ji benn songoo lay doon. benn te xeex bi du bari. xeex bi ñoom ñaar ku ak Omar ni ñuy xeexee bokkul Sa Thiès ay laaw lay def te ku mbër muy laaw nii samay jamono man bi muy bëre mbër muy laaw dama lay duma te sa loxo du laal te sa loxo du ma laal mbër muy laaw laaw jékki rek bàcc ay laaw nii ñëw mm-hmm. non non bu faas daaw doon laaw sax mais ay genre crochet la daan bëree la daan xeexee ars day jékki-jékki rek mel ni ku takk mel ni rajo bu ñu taal sa kaw day jékki-jékki rek takk ci sa kaw te noonu lay ñëf rek ñëw. te jéem waaw waaw ndax bëre bi dina gaaw. bëre bi mhm. non bëre bi waaw day gaaw mhm. ñoom ñaar. Mhm. non bu ñuy jàppoo làmb ji di jeex parce que ñoom ñaar ku ci nekk bëre ma bëre nga xam. mais ñenn ñi naan rëg balaa muy euh, jàpp day dajale. waaw bëreem daa parce que loolu ci bëre la bokk. bëre dafa am li nga fi nga xamante ne pour nga yegg fa sa adversaire il faut nga koy mocc ci loolu di ko mocc ci loolu ba yegg ko foofu nga ko bëgg a yegg. est comprendre nga li ma la wax. waaw loolu mooy waral loolu. mais sa Omar Kane saa bu war bëree bëree bu gaaw. da nga koy gis mu bëree bëri parce que xa gis nga ko moo euh, guy gi bi mu jàppee guy gi dafa war a bëri moom bëree bu gaaw. da koo jàpp rek indi ko rek def ko aller retour la ko def sax cabaxal bi sax jotul dugg mu dëj mu toog. ndax poids bu mu yor arrangé na ko. xale la xale la te yaramam woowu moo ko moom waaw. yaramam woow moo ko moom. rapidité Sa Thiès du ko du ko du ko du ko <laughs> ah. Omar Kane de dëgg yàlla séeréer si bu ne ngay gis te boo demee ba tëj séeréer si nag moom làmb ji waxal ne làmb ji kenn mënu ci séeréer si bu dee bëree rek kenn dàqu leen a bëree boo leen demee ni toog di leen seetaan ñuy bëree da nga naan ndax ñii dañuy mas mais xam nga la laa leen daan wax man séeréer si waaw dee leen jaay mën a bëre mais maa ngi leen di xaar université bi. lu waraloon wax jooju. université bi xam nga mooy lan. ku ci ñëw bu ma la dóoree ay kurpañ bu ma la jàppee fu ma la jëmale nga nangu doo tala bëri. laay billaay wallaay. ndeysaan. waaw boo ñëwee. Mm-hmm. ba arbitre sifflé. Mm-hmm. amul na arène ba fa làmb ja fële amul ay. njëkki université bi daal mooy kii mooy kurbañ yi. waaw mooy Dakar. mooy Dakar Dakar waaw àll bi nag moom. Mhm. waaw mbër mu ci mësaan wax mbëru àll bi nii di jaay mën a bëreeg di nii nii ma ne ko boo wax kii maa ngi lay xaar université bi. parce que dakaar mooy université bi. Mhm. waaw. combat bi yàgg. si diggante Sa Thiès ak mm. avantage kan avantage Reug Reug la. loolu parce que Reug Reug moo moo ëpp compéti moo gën a moo gën a moo gën a compétir. Sa Thiès ga fa gëj a compétir. mais euh, Malo dina feeñ si ñoom ñaar seen bëre du yàgg. comme ay kii moo gën a compétir kii ak compétirul. loolu dafa bokk ci làmb man tey man mii ma gëj a bëree nii. Mhm. tey bu ma ñëwoon ci làmb mhm. am na yu baree bari yi nga xamante ne da nga koy fàtte. dootoo amati repère. waa dootoo am repère. bala nga mëna am repère ci lamb ji day fekk lamb ji jeex mais bokul ak mbeur mi nga xamantene day compétir wa sa ties bu mu gëjé bëre légui est ce que matu bëggul jégé at Omar Kan at mi rek lim ci bëre ci ay combat MMA bi lim ci bëre ci ay combat bo xolé rek nu mu neew ne war na mat ay 4 combat té 4 combat yëpp mo daal ñëw enchaîné ko combat bi. ndoxtu ndoxtu bëre ñoom ñaar kan ko. non Omar Kane ëpp ndoxtu Sa Thiès bërikat la mais ñoom ñaar xeetu bokk xeetu bëre bi ñuy no. bokkul non non te balaa nga ci waxoon a xam dara mu ñëwoon ci tournoi yi tournoi yi nga xam nii tournoi yi bu ci ñëwoon booy bu ndaw koy daan. Sa nee na ñaar duñ waaw bu ko wax ne bu dee bëre rek moo ko dàq mille fois rek. waaw parce que nit moom kenn du kenn du doo war a bëre sa adversaire ba pare di nangu ne moo la dàq lii mais nit ñi ku ci nekk waaw sa avocat bopp nga waaw doomu aadama yi ñiy toog di seetaan ak di xam nga waaw ku ci nekk sa avocat bopp nga. yow cinquante cinquante bi li nga ko nangu. non non. cent la ak cinquante. cent ak cinquante. nangu woo cinquante cinquante. non non yamuñu. kii bëri kii bëree vingt combats ci benn guddi bokkul ak nga préparé benn combat ci six mois luur léger luur léger xeetu bëre bu ne ngay gis ci séeréer si tournoi am te dem am te dem am te dem am te dem ba jël la ñu fa tegoon loolu ku dul ndaanaan doo ko def. rëg-rëg arbitre bi sifflé. Sa dor ko korosu gos korosu droite. Mhm. rek Reug nan la wara réagir. non non mais kurpañ doo ko jël rek daw da wuti sa adversaire mam ci sa kaw adversaire. Mhm. dedet kurpañ saa boo ko jëlee. Mhm. rëb da ngay replier xool kurpañ bi fa la jaar ba dalma ma. Euh, mais euh, kurpañ sa buñ la ko doré nga rir nga né da ngay fayu ji. mën nga jël wala wala lamba ji mën na fa yam fa nga récupérer ko ba pare. waaw mais kurpañ sa buñ la ko dóoree nga riir damay fayu ji mën nga jël kurpañ bu ko gëna metti wala mëna ñoo wacc teunk sa ñaari père lamb ja yam fa kon sénégal ak li ko wër lan lañ mëna xaar ci lamb jooju lamb jooju omar kan ñew bëré daan rek ñew rek ba non nit yow lool non lay démé dinañ waxtanaat hmm. waaw waaw bu lamb ji bu lamb ji jàllee waaw dina nga ñëwaat fi tok ñu waxtanaat wala ma jël la yobul la ba ci Omar Kane mu tok ma tok déjà ñu waxtaan. amna solo lan ngay tàggatoo tok mbokk internet Lutte Motivation. waaw ñom tubar fa ma sha allah ma ngi leen di ñaanal rek. di yokuté parce que ñom xam nga wa bax nañ fi quoi. parce que dañuy li doomu adama yi té dañuy tax nit ñi xamul won xam lu baree bari. nit ñu ñu gëjë gis ñu gis leen. Mhm. kon lolu ñong leen ci sant di leen gëreum ma dimanche nga ñëwee sa dimanche. waaw bëgg naa ko incha allahu rabbi mais jamono ji nag dama xawoon a tawat quoi waaw dama xawoon a am benn tawat bu ndaw bu ma xawoon a sonal loolu moo taxoon combat booy bi lu ci baree bari sax du ma mën a dem waaw daanaka damay mujj a nekk gàlle rek waaw yor fa la ma yor sama kurus quoi xam am it lu ma fa yor toog waaw di ko fasal waaw am na solo ñu ngi lay jaajëfal ci li nga xamante ne mooy sa disponibilité di la kontaane bu baax a baax sunu grand nga sunu lépp nga waaw bu ñu la waxee émission bi da nga amul benn problème waaw di la ñaanal tamit li nga xamante ni mooy gudd fan ak wér ak wérle comme ni nga ko waxee léegi rek ah, yàlla na yàlla defal jàmm di profité rek di nuyu ki nga xamante ne mooy Max. Max sama xarit bi. waaw Max Max tey Max borom baax la. Max moom sama jantal booy la. Max maa ngi moom xamante wuñu fii Kër Massar quoi ñoo bokkoon benn fi ñu dëkkoon fële nii Géejawaay moom daanaka sama carrière am na li nga xamante ne moom fekke na ko ci quoi waaw. lu mu doon bëri na trop. waaw dëgg la dëgg la parce que. ñoom xam nga waaw. Mhm. ci samay supporters la bokkoon quoi. waaw samay supporters la bokkoon. kon nag maa ngi koy ñaanal gudd fan. liggéeyam bi muy liggéey muy téyër bi. yàlla na ko suñu borom defal xéwal gu ji euh, gu ëpp njortam. te may ko gudd fan ak wér gu yaram. parce que borom baax la ko waaw kon rendez vous la 5. incha allahu rabbi bëre daan rek. waaw ñibbi. aja am na solo di wax seen émission xaar ko ci beneen numéro ak beneen daandaan di euh, jaangeen jëf waaye di profité tamit di jaajëfal ki nga xamante ni mooy xës mi nga xamante ni moo nekkoon si cadrage bi borom liggéey bu rafet bi maa ngi koy jaajafal bu baax a baax jaajëf